jël dogal tàggalikook njiitu réew mi Macky Sall wala sax njiitu réew mi moo jël dogal bi ndax ci biir yéenekaay bi suñu naatangooy ñu ngi ñuy jàngateel nii bu fekkente ne Idrissa Seck ci boppam dafa xam ne ni moom moo jëg ci coobare boppam daal di dakkal àndandoo bi Macky Sall moom yi tamit di xam ne nii li tax mu tàggalikook Idrissa Seck ci boppam bokk na ci taxawaay bi nga xamante ne am na ko léegi ak bu mu ci mënti doon daal réew mi quotidien di xam ne ni kon diggante Idrissa Seck ak Macky Sall gis-gis yi mel ni léegi tàggalikoo am nag nag waaye teewul benn mbetteel amu ca ndax askanu Sénégal dafa mel ni dañoo tay ci diggante Idrissa Seck ak Macky Sall nga xamante ne ànduñu te bàyyantewuñu Idrissa Seck ak Macky Sall tas ci njekk ak teranga enquête quotidien moo ñu ko xamal dëgg la naam ñaari homme politique yi dañoo xajaloo léegi waaye ba tey ñu ngay wëy di déggante yéenekaay bi di samp laaj ana naka la ministre yu nekk ci parti réew mi te bokk ci gouvernement bi di mujjee mu mel ni njiitu réew mi tamit ma ngay xaar seen démission naka la ko Idrissa Seck daal di yégle Idrissa Seck ak Macky Sall daal di dëggal seen tas bis bi le jour tamit di ko dëggal di fësalaat déggaat kàddug Idrissa Seck mi nga xamante ne ci ab ndajak taskatu xibaar yi ci samedi gi xamle na ni euh, tey ji lay déposé démission ci taabalu njiitu réew mi Macky Sall moom njiitu di xamle tamit ba tey ci yéenekaay bis bi ni moo sàkku ci Idrissa Seck mu daal di dem toppatoor candidature am ngir élection présidentielle bi ñu dëgmal ci présidentielle 2024 boobee Idrissa Seck ak Macky Sall ab jàmmaarloo lay doon Walf Quotidien di ci jàngate ni mën naa gën a neexal géewu politique gi rawatina fi ak jàppee Idi ak Macky ndax Sud Quotidien mooy xam ne ni Idrissa Seck dafa dakkal kon mburu ak soow bi mu mel ni léegi defante moo ci des defante moo tax ci biir yeneen kay groupe Sud Communication bi Macky Sall ma ngi cee wane boppam suñu naataango yi fësalaat kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko ci ab émission ci bisu korité gi wax ci ñetteelub mandat bi nga xamante ne kon ñu ngi ko ciy xaar waaye tamit coowal Sonko li mu xam ne ni kon nekk ab homme képp taxul nga daal di am ab immunité moom njiitu wax na ci ñu ay te ñu nekk ci Sénégal mu mel ni ku àndul ci boobu boobule gis-gis moom Macky Sall wax na yi tamit ci taxawaay bi nga xamante ne opposition am na ko ci dialogue bi moom njiitu réew mi mel ni kuy dànkaafu ne lim leen tàllal loxo bu ñu ko nangul du ñu doon candidat moo tax yéenekaay bi di 24 heures di ci jàngatee ni dialogue bi juddoogul waaye dafa mel ni faatu na ba noppi ndax dialogue moom kenn mënu ko ci séentu noone la ko yéenekaay bi jàngatee daa di fësalaat taxawaay Macky Sall naka noone opposition bi ku ci mel ni Mimi Touré Mamadou Lamine Diallo Ousmane Sonko bu amee tamit jàppale ni jaloog bi ay nit yu tëx ñoo ko sekk Vox Populi di xam ne ni kon Macky dafa woote jaloog ba noppi am taxawaay bi nga xamante ne am na ko ci moom njiitu mi ci yéenekaay bi di xam ne ni ba tey woote dialogue bi ci boppam munoon na ko ci bañ a fekk rax ci dolli muy fàttali opposition bi ni kon dialogue bi moom ku gedd sa yaay aaye kàddu yooyee nga xamante ne njiiture mi yëkkati na ko ci dialogue bi moo tax l'évidence yéene kaay di xam ne ni mujj gi moom Macky Sall dafa mel ni moom képp mooy waxtaan ak boppam Macky wax ba jeex ci bisu korité gi waaye fa ñu ko doon xaar daanaka àddu ca moo tax le quotidien le quotidien jàpp ni Sénégal ci boppam moo toogaat di xaar ci mbirum ñetteelub bi am déet ndax la woon fa woon Macky dafa delluwaat rek buum ca mboy mboy ga Macky idi yokk ci Karim Wade Dakar Times fësal ci bu njëkk nataalu ñetti homme politique yi nga xamante ne jamono ji dafa mel ni ñooy lëmbee politique gi yéenekaay bi jàpp ni lii dafay wane ni libéraux yi jamono ji ñoom ñooy buur di bu ci politique bu Sénégal réew mi quotidien dikkaat na moom ci feetub korite gi ak xutba yi nga xamante ne moo tukkee ci imaam yi yéenekaay bi di xam ne ni kon dafa mel ni kàddu gi benn la ñoom ñëpp sàkku jàmm ak dal ci réew mi bis bi yéenekaay di ko ci feelu naka noone le soleil yéenekaay mi nga xamante ne wax na ci wooteeg jàmm bi nga xamante ne imaam yi yëpp daanaka def nañ ko ci bisub korite gi ci imaam yooye bokk na ci ki ci waneyaat boppam Walf Quotidien fësalaat kàddu yi nga xamante ne imaam ratib bu grande mosquée bu ndakaaru yëkkati na ko ŋàññi bu baax taxawaayu ñi di manifestan yi ci Sénégal ak li mu mel ni ku leen di dànkaafu ci Vox Populi Ousmane Sonko dànkaafu na njiitu réew mi Macky Sall ba mu jullee tamit korite ba noppi ca Sikicoor wax na ngir loolee am faw ñaar daal di koy sekk libération dikk ak ñun tey ci mbirum commandant Barro moom njiital corps de bataillon musique principale des forces armées bi dañu ko mujj teg loxo ak lu toll ci benn milliard ci billet noir moom ak Mamadou Fatou Ndiaye mi nga xamante ne agent poste finance la Hubert ba nekk technicien audiovisuel naka noone Mbacke Sow Ndiaye di ab étudiant waa brigade de recherche bu Kër Massar ñoo teg loxo bi les réseaux ñoom ñëpp ñi nga xamante ne brigade de recherche teg na leen loxo dañ leen a ji wees ci dimanche gi wees abib Diallo wane na boppam réew mi sport di xamle ni kon doomu sénégalais bi nekk ca Strasbourg ab doublé la daal di dugal ba tax clubam jamono ji mën naa yaakaar maintenir ci Ligue 1 bu France ca Ligue 1 ak Bundesliga naka noone kon Serie bu itali bëri na ay sénégalais yu ci wane seen bopp moo tax Stade Quotidien jàpp ni Korité bi moom neexoon na lool ci gaynde yooyu ndax ku mel ni Habib bu Boulaye Dia naka noone Sadio Mané wane nañu seen bopp ndax ku nekk dugal na ci